yëkkati drapeau am laaj ko ne ko yaa waxoon ci audio yi ba nawee sa siis bi du wan man même bi ñuy génn kër Ndeye Khady Ndiaye da ne woon daa ëmb maître El Hadj Diouf nee na da doon pièce Ndeye Khady Ndiaye léegi Adji Sarr kañ la wax dëgg moom maanaam ban bis la wax lu nit mën a téye yéen a ngi wax nag Sonko naan xale bu ndaw ngeen fekk ko ci biiru néeg di ko di ko di ko di ko bu xale boo xam matiru waaye gone bu matiru ku jël ab état bi la mu wékk ko ko ba bu gënee geesegee état bi échec ñoo gën a doy waar Sonko doomu ndax aw yaram a gën yow ci dossier yi wax léegi nag dama laa bëgg yëgal dara suba wala gannaaw suba wala gannaawaati suba ñetti fan yii man yëg naa ne Mamour Diallo ndax mu tudd ko sax ab audio dina génn. ah dina waaw appel bu mu def Alpha Seynou Gueye. di ko wax ne ko léegi est ce que mën ngaa ñëw sama kër ma Alpha mu ne ah, mhm. am ngeen numéro am moom moo ko woo. naan ko léegi est que ana ana ana rapport médical bi ndax mën nga koo génne mënu ko semaine prochaine mënu ko yii loolu mënut a xaar na léegi. maanaam waa ji ne ko mais est-ce que sax man ma génn wóor na mu ne ko non téléphone la ñuy wax wóorut nañ dem WhatsApp. mais da nga bëggoon ak numéro ak capture d'écran dina génn ci public bi Sénégalais gis ko man yëg naa loolu. te bu génnee Mamour Diallo du ko wedde moom dem na ci juge bi les secours Mamour Diallo moo ko moom ma nga naan neen nee bi man xaw ma suyet gute xamoo suyet gute yow nga woo ku ñuy wax Viviane Wade plus de dix appels Viviane Wade sii Ahmed di woo Adji Sarr ay appel Mamour Diallo kañ lay xam Adji Sarr kon moom gis nga lii ngeen dem ngeen dem fu leen neex procès mais sénégalais yi ngeen di liggéeyal leen leen a yey ci affaire Adji Sarr nañ ba pare parce que Adji Sarr dafa cuune dafa da ngeen a defaat da a jëloon ah? ah non non da ngeen a seen seen seen seen yaakaar yëpp ne amul dam waaw léegi nag daanu na ok euh, sëñ Moustapha